asalaamaaleykum mbokk yi picc mi point com la ñuy dooree mi fësal tey interview bi ñu def ak Abdou Guèye consultant boobu en environnement marin nee na suñu nappkat yi ñoo tooñ ndaxte waruñu napp ci territoire Mauritanie ñëpp di xaaraandi li génn ci ndaje bi Macky Sall ak njiitu réewu Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz war a amal tey ñu jóge ci géej gi dem palais de justice yéenekaay bi di laas xamal ñu ne procureur Serigne baas merloon na Khalifa Sall ndaxte da ko ne dafa luubal xaalisu waa Ndakaaru xalifa tontu ko yow da nga am problème enquête xëy ne Serigne Bassirou Gueye procureur de la République dafa jéebal boppam nguur bi Dakaractu xëy titre ne Idi dafa bëgg a fës fi mu toll nii ci langue politique bi waaye mag yi du ko fale ndax xam ngeen ne hôpital général bu Grand Yoff dafa feebar enquête moo ñu ko xamal fayuñu salaire yi te malade yi fa nekk sonn nañ torop torop cliquer leen Peccum web TV YouTube dañu tàmbali benn magazine économique duppee ko challenge def zoom bu mag a mag ci seen premier numéro ci dimension économique bu Tijaniya ca Boulel wax ci tàggat yaram site bii di métro Dakar ne ñu Casa Sport du mën a US Wakam ñeenti ball ci dara démb ci ñetteelu journée wu championnat Sénégal ñu jeexalee bambula bi am cité mixta l'observateur nañu kenn ci koñ boobu moo ne mës na bett ay ndaw ci ay appartement te ni ñu leen juree woon lañ leen fekk ñuy filmer wu ñu dëkk cité mixta nag nee nañ duñu nangu li ni mel seen koñ yan matuwaay la ñuy jël dinañ ko xam ci fan yii di ñëw yéeni kaay ak site yaa ngi leen di xaar ñu yendoog jàmm